asalaamaaleykum wa rahmatullah chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am yaakaar ne suñu kàddu yi dina leen fekk ci jàmm ak salaam fii ci Sunugal 24 di leen jox ay information yu wér te wóor te gaaw tey di mercredi 30 août 2022 am nañu xibaar bu wàcc si mu ngi concerné nag ki nga xamante ne moom mooy Seynabou Kaba Diop ñu ko gën ko xam ci Nabou Dash Nabou Dash xàmmee nañu ko ci ay live am xàmmee nañu ko ci ay intervention bi nga xamante ne mu ngi koy amal ci réseaux sociaux yépp muy Facebook Facebook muy Instagram muy TikTok xàmmee nañ ko bu baax xam ngeen na bu Dash ne jot na am ay sëy yu xamante ne jot na weesu ci ginnaawam am na ay sëy yu mu jotu sëy divorcé ba bu mujj bi nga xamante ne ki mu mujjee sëyal muy monsieur Yaram Mbergane nga xamante ne moom moo mujjee woon doon borom këram gis ngeen fête bi ni nga xamante ne noonu la meloon nekk fête bu rëy xew moo xamante ne ñëpp amoon nañ yaakaar ne sëy bi dina yàgg ndax na bu Dash ci boppam dañ koy dégg mu naan mosuma sëy maa ngi soog a sëy donc sëy bi amoon nañ ci yaakaar que ne dina yàgg dana a sax mu nekkoon mariage boo xamante ne réseaux sociaux yi ñëpp jël nañ ko comme moom ni nga xamee ne noonu la amee noonu lay amalee ay live am ci réseaux sociaux yi donc Nabou Dash borom këram boobu mu mujjee divorcé moom moo ko porté plainte jamono yi may wax ak yéen mercredi 30 août 2022 yoon teg na ci moom loxo mu ngi ci loxoy yoon ñu ngi ko arrêté nag plus précisément ci locaux CCE bi nga xamante ne moom moo nekk Sacré-Cœur 2 ginnaaw bi nga xamante ne ex jëkkëram bi mu doon sëyal plainte na ko jamono yi may wax ak mu ngi ci loxoy yoon incha allahu rabbi dinañu ñëwaat pour euh, plus ample information ci lépp lu jëm ci Nabou ak arrestation ak sëyam bi incha allahu rabbi